fu suñ loxo jotul buñ fa nekkee dañu fay taxawu mhm. xam nga Omar yor na site boo xamante ne moom it bu fa nekkul buñ fa taxawee dañuy taxaw ci palaasam mhm. ndax làmb famille la biram mhm. ñi euh, nga lañ fa yebaloon moo ànd ak baaba baaba jaw xam naa ci kanam tuuti rek dinañ ko dëkkal ñuy teelu ndax journée bi amoon na solo ñu tuddee woon ko nag euh, président Bougane mu yebal fi une forte délégation su ma jumul madame Thiam moo leen fa représenté woon mais journée bi amoon na solo lool ci diggante Modou Dia ak Thiat Euh, journée bu rëy la woon euh, nañu dem arène national xool li fa xewoon ci diggante Modja ak euh, caat bu caat bu Boy Bambara nekkoon drapeau président Bougane bu ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi xale yaa ngi xeex jàppante nañu ngoobu na ko da koy mbootam déet attention sees ba dam nañu ci suuf takk na ko takk na ko amateur yaa ngi tàccu lamb gis attention daa daan na ko lan la arbitre wax waaw waaw daan na ko moo nu woon ginnaaw attention doomu Yoff door na moo nu fecc ndeyjoor mbës suñu càmmoñ mbës door na daw song doomu Yoff jàpp na tànk ba mbës la muy def nii mbës la muy def nii di ko ko bàyyil ndax wóor na ŋoobu na ko sees na ko mu bañ ma ngi koy yóbbu war na ko ndomb penanti eh xale bi war na ko penanti waaye Yoff jóg na ñun yëkkati na ko ba ca daaneel na ko mu bañ ñaari oom ndax da koy rate ay e doomu Yoff ndax dañ ko bëgg a rate yëkkati ko ba ca doon ci suuf arbitre nee na jeex na arbitre yi consulté na ay juge am na doomu Yoff daan na doomu Yoff daan na waaye Yoff a ngay jibile laa ilaha nga maar woon jàkkaarloog ñun combat gaaw na di gaaw na bu diis Sangomar yéen bu diis jàpp na ngemb dañoo opté bëre eh yéen bu diis su def nii laa ilaa yéen bu diis na ko te ko ngoobu caxabal ko mu tëdd moo jàkkaarloog ñun Ochot woon ñu ginnaaw ñu ngi lewatoo ñoom ñaar Ochot daw na dal ci kawam eh Ochot da koy gra eh jàppante nañu eh daw na sandwich daan na ko daw na sandwich daan na ko daw na sandwich daan na ko laa ilaha illallah xale bi daan na ko mais bi moo mën a bëre waay daw na génn waaw delloo ziar waa jon waa a ngi si jàmm sant yàlla waaw foofu benn jàmm quoi sim naa leen ziar yaa mag to jajafaɗam sinna an ɗum fof a holwan ɗum fof kefnono ɓiyo seeɗe caale giyarama begueyam a sargalam a magalam ahan euh, combat bi tey mu mel ni dañoo jox cat favori waaw non xama lamb la parce que lamb man moom nekkuma favori mais comme yàlla gaa gaa dinañ ko bëggee ñu ngi sant yàlla bu baax a baax dañ ko sant yàlla bu baax ma waajale ko waaw ni ma ko waajee waaj ko ak sama mbokk waaj ko ak sama mbokk séeréer yi xam nga ñu indi ma yëpp ma conseiller ma li ma conseillé rek laa indi si biir lamb ah. ngi si bi waaw gëj nañu gisee trop alhamdulilah. sant yàlla fu mu toll. ci li mu daan nekk rek nekk ci liggéeyam malgré nag am na benn handicap bu ndaw mooy blessure bu ko dab ci biir préparation komba ba tax ñu euh, repousser waat combat bi mais voilà ñu ngi toog xaar war pour nekkaat si suñu liggéey. mais tey nag dañ ñëw fii pour benn raison bu particulier mooy lan gunge si suma ay rak muy waa Yoff particulièrement tamit moo jëm yi nga xam ne tey moom moo xewle. le mais Libidor noo waaj sa combat sa digganteeg bu zap. waaw waaj ànd ak samay rek ñoom jaag saar xam Sangu Jaan Ngel Jon gaa yëpp xam nga yegg sil bàyyi ma kenn Mbaye Diagne waaw. def tey dina waaw tey. non tey moom ñëw jël si li moom la rek incha allah maa ñaan yàlla nag mu may ma ndam. jaar bu wér na Ngel Jon. Ngel Jon a ngi nii de. foo toll. non maa ngi ci wàccaay bu métti na ngeen maa ngi wàccaay bu métti nekkoon échange yi loolu pare naa. barke Serigne Ba am. bisimilah dal jàmm rahmaani dal jàmm. xool sedd si aar jëmm. alhamdulilah waaw. combat la woon rek kon yeneen combat yi waaw parce que ku ma doon bëral tamit xew moo ko waa champion la bu dee benn at ñu ma ko ñëkk a dugg si làmb ñoo mag ñun ay xale lañ moo ñu may ndam. def ko Cheikh bu Mouhamed doon nay moo tax ñu am ba li nu am ak di maam Cheikh bu moo waral ku ma gis jox ma cër ba war di jël ci say dërëm di ma jox ak yeneen i mbir. Sidi Diama gën jàkkaarloog naxa naxa. ba léegi cong amagul. eh eh Sidi Diama gën jël na naxa naxa. dem nañ ci suuf. attention il faut que tu sois vigilant. Eh, naxa naxa daan na ko. ah Sidi Diama daan na naxa naxa. Serdeka peluk dia kontaan ak euh, contentement bu rëy parce que Prince dafa nekk xale am yéene ci làmb ji euh, nekk koo xamante ne nitu challenge la tey stade bi fees na dell bu tëgg combat yu a représenté Bougane waaw tey ñu ñoo teewaloon président Bougane ci drapeau biñ ko tuddee donc ñu ñëw ak une forte délégation. de de de la ville de Pikine ñoom ñoo fi teew tey. waaw xam nga ku rëy boo ko tuddee lu rëy ñu rëy ñëwal ko fu baax dañ leen war teg donc loolu moo waral toogaay bi. sunu président. kontaan ci moom baax a baax mu gëm boppam bëgg réewam bëgg ñoo jàppale rek te yàlla tax ñu koy ñaanal nag yàlla na toog ci palais ba nekk président de la république du Sénégal. gunge rek suñu président mu yebal suñu coordinatrice rek ñu gunge ko xam ne dafa nekk ci xat-xat rek waaye amoon na yéenay ñëw ah ñu ñu ñaan yàlla 2024 ñu dem palais dara mënu nootee. bëgg président Bougane rek di yàlla yàlla jox ko Sénégal ndax ko am yërmande la ku mën social la moo tax bu ñu ko tuddee drapeau bi ñu rafetlu ko lool ànd def délégation ànd ak madame Thiam coordinatrice nationale ñëw teewal ko fi ci stade bi. arbitre sifflé ci sama montre fi ci arène nationale ngeer wàcc na ci suuf Libidor jàppante nañu moog ngeer xeexuñu bëri bi la ñu opté ñoom ñaar. ngeer a ngay wut libidoor crochet na loxo bi ngeer laa ilaha illallah ngeer daan na libidoor ngeer daan na libidoor dafa wàcc jël tànk bi damm ko mu daanu ngeer bu tay si nga daan na Libidor. France tey da nga tuddee Bougane Gueye Dany. waaw waaw Bougane suma mag la suma xarit la. suma lépp la. yamuñu si tuddee ko rek. mais dañ koy rendre hommage. parce que il fait partie des cent personnes les plus influents du Sénégal. tey c'est un leader. créé na plus de sept cent emplois ou huit cent. direct ak ah, mille emplois indirects. tey muy yootu réew mi bëgg réew mi. di sonn di dem si population yi donc suñ ko tuddee dañ ko war a tuddee parce que mérité ko tuddeewuñu ko parce que daf ñu neex mais ay valeur moo tax ñu tuddee ko te dafa war a inspirer toute une jeunesse. nag trophée Bougane Zale Bigue mën na ko jël madame Thiam mën na ko jël ku ci nekk yéen mën na ko jël mais dañ koy dara jaale ki nga xam ne mooy madame Thiam ah Lamine Diabaté Lamine yow yaa koy jox madame Thiam moom mooy koy jël ki nga xam mooy président Bougane Gueye Dany aja Lamine madame Thiam ñëwal nii voilà voilà mi ngi noonu. vraiment ah, xanaa ñu ngi koy gërëm di ko sant vraiment waxuma la sax si tuddee bi mu tuddee président Bougane mais accueil bi mu def ba ñu yegsee rek dañ see kontaan donc di ñaan rek incha allah nii 2024 bu ñu koy tuddee fekk ñu nekk président de la république mën a def lu gën a rëy li ñu def incha allahu rabbi yàlla baax na ñu ñaanandoo ñu ñëpp rek fépp foo xam ne bëgg nañ fa yeggale président Bougane yàlla na ko fa yàlla yeggale di gërëm ñi nga xamante ne ay coordinateur ak ay coordinatrice lañ ñëpp ñu àndandoo tey def délégation ñëw fii tey jii si bésu presse te lu rëy la aussi si président Bougane ñu ngi leen gërëm di leen sant. merci madame Thiam trophée Bougane Gueye Dany mi ngi noonu Aline. jërëjëf. Bougane Gueye réew mi ko war a ñaanal dëgg neexul Bougane amul ndomb tànk waaye Bougane ci réew mi bari lu ñu am ndomb ak tànk ci réew mi te defuñu ko kon yaakaar naa ni bu ko presse drapeau bu toll nii. ànd ak madame Thiam Ibra Gueye ak ñi nga xamante ni ñooy mbooloo mi yaakaar naa ni loolu bu ngeen demee ci Bougane war ngeen ko wax ni ko réew mi kontaan na ci moom prince kontaan na waaye communicateur yi kontaan nañu. caatak ki nga xam ne mooy Modou Dieng ñu ngi ci diggu géew gi arbitre da ngi wax ak ñoom li lamb nangoo ak la mu laaj na ñaari mbër yi mbër yi pare nañu arbitre sifflé na ñu ngi leew taw Modou Dieng ak caat seen leew taw bi yàgg na dara amagul. caat meb na waaye damul ñaari mbër yi attention moo xeex doorat na caat fayu na boobu droite ak droite la da koy doorat mu fay xoolal doorat na moo di jaag caat moo di jabu yoof moo jàkkaarloog ñun jaag caat Modou Dia sànni na Modou Dia dooraat na eh, daje nañu caat jël na ko caat daw na jël ko Modou Dia bañ na rasu na caat eh caat a ngi koy mu bañ mais Modou Dia lu muy def nii moo caat Modou Dia caat Modou Dia caat fii ci arène nationale Modou caat jël na tànk ba Modou Dia looy def nii mu ngi koy war ndomba eh.